session ordinaire bi ñu doon def tey li ci gën a fës mooy eh, li nga xam ni mooy bi tey mooy ñetteelu session ordinaire bi nga xam ni moom la ñuy moom la ñu tenir tey donc ci conseil départemental bu Thiès li ñu ci doon waxtaane nag li ci ëpp solo mooy débat d'orientation budgétaire xam nga loi bi moo ñu tënk ni bala ñuy ubbi session budgétaire bi dañu war a def benn débat débat mooy ñu waxtaan xool eh, li nga xam ni moom la ñu mébét pour année bii di ñëw donc loolu dañ ko def basé ko ci li nga xam ni mooy budget 2015 bi li ñu ci tënkoon pour réaliser ko donc xam ngeen ni jotoon nañu budget cent quatre vingt dix neuf millions ci cent quatre vingt dix neuf millions yooyu euh, cent quarante millions fonctionnement la woon cinquante neuf millions yi moo doon investissement ci investissement yooyu liñ ci réaliser ci lycée Noto liñ ci réaliser ci li lycée Malick Sy liñ ci réaliser CM Suun clôturé ko mais également fukki millions yu jox hôpital régional loolu lépp waxtaane nañ ko mais également ci loolu lañuy ñuy basé wu pour xool li ñu li ñu war def ëllëg. li ñuy ñaan nag mooy moyens yi nga xam ni moom la ñuy jox conseil départementaux yi ñu gën ko xoolaat ndax conseil départemental bu toll ni bu Thiès ñu jox ko budget boo xam ne matul sax ñaar téeméeri millions pour année ak li ñu war a li ñu ne suñ ndodd yëpp quand xam nañ loolu quand jaaduwut maintenant également euh, déploré na ñun ñëpp li nga xam ni ba léegi salaire u personnel bi kenn fayu ko ndax tey mooy le 14 suba le 15 ba léegi te c'est la première fois mu dal leen mais aussi loolu dafa li ko waral mooy li nga xam ni mooy manque de moyens yi nga xam jox nañ conseil départementaux yi c'est vrai am na ay conseils départementaux yu toog 6 mois yoo ñetti weer mais ñun mu ngi ñuy soog ndax ñun takk nañ suñu ceinture takk la ñu waroon am sax ñu ngi ciy liggéey di ci waxtaan ak préfet département ak nga xam ne moo yor mbiru état bi muy payeur régional pour mu mën a fay salaire yi defe naa li ñu doon xaar mooy euh, loi de finance rectificative bi nga xam ne assemblée nationale war na ko voté ñu mën ko euh, jàllale pour ñoom ñu mën a xam lan la état bi yokkal département yi je pense que loolu aussi su amagul war nañ mën a jël ay engagement ñoom ñu fay xam ni état bi dina yokk loolu moom d'accord nañ ci beneen bi ci des mooy déplorer li nga xam ne moo am assemblée nationale ndax defe naa ni assemblée nationale mooy péncu ndaw réew mi mais moom mooy vitrine démocratie Sénégal li fa am. donc dañ koy déplorer mais également dafay wane rek manque de dialogue politique bi am ci biir réew mi defe naa ni su amoon euh, defe naa ni lii yëpp du am donc te loolu mën na am ay conséquence ci fonctionnement état Sénégal mais également côté local yi tax na kon dañuy demander rek les députés ñu am plus de responsabilité vraiment pour que li nga xam ne mooy seen liggéey ñu def ko mais également ak démocrate yi nga xam ni Sénégal am na ko vraiment ñu mun ko préserver donc à tout prix donc je pense que jàpp nañu également euh, calendrier euh, session budgétaire bi ñuy ubbi le vers le quinze décembre bëgg nañ daal voter avant fin d' année bi pour que vraiment début d' année ñu mën a am suñ budget bu disponible vraiment parce que li ñu li ñu ne suñ kaw bëri na mooy bëriwul mais nañ koy teel a jot vraiment teel ci defal askan wi li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñun je pense que loolu la woon ñun ñëpp waxtaan nañu ci ambiance bu rafet. waaw ñu ngi xalaat ñun yàgg nañu xalaat yàgg nañu proposer même gouvernement bi ay piste yoo xam su ci jaaroon conseil départementaux yi wala côté local yi sax duñu am yenn difficulté yi man rencontre naa ay jëwriñ ñoo xam ni damay damay waxtaan ak ñoom donc ci acte 3 bi mais également ci fonctionnement collecte locale yi surtout département yi ñenn ñu proposé naa leen li nga xam ne mooy tax minière yi nga xam ni am na ay département yu xam ne am nañ ay mines comme Thiès ay Kédougou ak yenn Saraya yenn département yi xam ne am na ñooñu waru waruñu woon am ressource problème de ressource mais problème mooy état bi day fayeeku taxe minière bi garder ko tëdd ci te du ko reversé loolu moom defe naa ni biñ ministre bi mu ñëwee Ngour wax na ko ñëpp dégg beneen bi ci des mooy mbiru ndox mi xam nga dañ ni département yi ñooy gérer les ressources naturelles les eaux souterraines ci ñun la bokk rek ndox mi ñuy def ci for bi ñuy puiser ci forage yi di ko joxe wala di ko ay usines di leen autoriser ay forage même taxe yooyu nga xam ne dafa am 2.5 yi ñuy def seen factures yi loolu en principe dañ ko war a reverser conseil départementaux yi donc loolu lépp suñ ko doon def defe naa soulagé wu du am problème yu bëri collecte kii nu mu tuddati conseil départemental yi dinañ am moyen te état bi du génn toujours ci gafaka mais loolu lépp réflexion la pour li nga xam ni mooy autonomiser donc euh, les conseils départementaux ñu dem wutal leen ressource propre ba xam nga toujours dépendre ci état bi di pour moom ñoo ñuy jox day sax entraver autonomie ak indépendance financière <coughs> ak autonomie de gestion bi ñuy wax ci collecte locale ba tax na kon defoon nañ nii. Euh, réforme bi acte 3 dina intégrer yooyu mais ils la deuxième phase nous attendons donc que tout cela soit effectif mais li nga xam ne mën nañ ko jàpp daal mooy tey euh, côté local yi ñu ngi dund jafe-jafe yu metti te loolu tax na vraiment <coughs> seen efficacité wala li askan wi xaar si ñoom doxaguñ ko en tout cas ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu te defe naa ni la réflexion dinañ ko approfondir poursuivre ko pour que